yaa xayra day fil ata wa rahmatullah guddik ñeenteel ga ci weeru koor ku ca julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon ak xul yaa kaafiruun ñetti yoon dees na ko bindal tuyaabay jaamuk junni nit te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon jullee naafile ñu ngi koy jëlee ci xuratul ayni bu sëriñ Soy bu Mbàkke wasalaamaaleykum wa rahmatullah